والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته وخدمه أجمعين لنو بنو سنتي سنبرم تبارك وتعالى ني جوليتي انتبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانت سنياكا تيك لخادم الرسول شيخ أحمد بامبا لنيان sëñ منتخا سنو بروم yàggal كو في ba naan yi mu naalal Cheikhul Xadim mu àggale ko boole ci wàlle ay naalam tan àndu ko ak moom te lépp dëppoo ak ngërëmal Sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim ñuy sant mbooloo mi fi teew yépp ci nga xamne borom moy khadimu rasul kon magaluk serigne touba ndax da bis bi mu taamu woon ci bis yi moo di ñaan sunu borom ne ko defal bis bi nga xam ne moo may gënal mooy bis bi may wuy si di dajeeg yow allahumma ijal xayra ayaami yawma alqaaka loolu la ñaanoon kon nag bis la boo xam ne defe naa ne addiyey àddina yépp a ko bokk kon ñuy leen di seere sunu cant ci seeni teewaay ci bis bi ci tànt bi di sant bu baax sëriñ Gana Messere mi nga xam ne moo àggale waxtaan wi ci laa jëm di sant bu baax sëñ Omar Bousso mi fi teewal sëñ Mbàkke Bousso nga xam ne bi ñu tegee suñ dispositif yépp ba war a tàmbali ndekete yàlla moom la war a def mu war ko ubbi kon alhamdulilah ñu sant ci bu baax di ko sant ci taxawaayam di sant kilifa yi fi jaar yépp di sant sëriñ Mamor Sam moom Cheikh Mamadou di sant sëriñ Modou Abdoulaye Mbacké mom sëñ Bassirou Khoudia Dieng di sant mom itam serigne Imam Niang mom sëñ Modou Mamoun Niang di sant di sant bu baax serigne mustapha mom sëñ Alaaji bara nag bokk yi fi jaar yépp nga xam ñew nañu fi tiaw fi te ëppalew ma leen ci bis bi ndax bis bi ñépp ko bokk adina ko bokk muy bisu serigne Touba kon bala ñoo jox kàddu gi sëñ imam ñang dañuy jottali ay cant jëme ko ci mbooloo mi jëme ko ci taalibe yi nun taalibe yi sëñ Gana ñu ngi lay sant bu baax sa waxtaan bi yaa ngi ko jëme ci tegtali sëriñ Touba ak turaas bi mu fi bàyyi ak ndigal yi mu digal ni mu jaamoo suñu borom tabaraka wa taala bu suñu borom euh, may ko lii mu ko may tey seetit yi nga xam ne ay jikko la yoo xam ne ñi ngi koy doxal di ko jaar ci turam wala jikko yu doxee feneen yoo xam ne juyoo na ak yi mu di di tegtale te ab joxañam lépp ci aw yiw la jëm ci shariatu nabawiya sharifa la jëm ci lu defar bindeef yi la jëm ndax la mission bañ joxoon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom lañ ko jox mu war ko motiver mooy defar bind fi jàkkali lislaam kon alhamdulilah ñoo ngay sant ndax ni nga ko waxee noonu la dafa am naa ngi koy wax bërki démb liggéey lu ko suñu borom jaral loo xam ne néew na ku mu ko jaral te léppam yëm ci sunnas muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ànd ci nag boole ñu ko dara am tawxiid bu wér wér wér wér liggéey ba xam ne mooy li nga doon wax léegi jamono nag dem ba nga xam ne na mu tàmbalee woon moo di fonk lu doomu aadama di boppam nga xam ki nga doon gëm sa bopp am looy jombale sa bopp ak loolu jombale sa bopp am looy bëgg am looy bañ parce que loolu bu amul ci doomu aadama rek daañu ci wuute wuutale ak bàyyi ma bariwul kon Serigne Touba lim mu bëggoon mooy ñu am suñu dignité léegi nag dafa am ñaari yëf yu ci am mooy dañoo bo histoire dañoo boole ak nasaraan bi histoire boole nu ak arab bi jaare ko ci diine bi mu jaare ci diine ñu jaawale arab bi ak julit bi li tax ma koy wax mooy jànge naa fa ci seen biir xam naa leen bu baax a baax

ci euh, jàng wolof ki xam joolaa suñ maam ya daa def ay maxime ak i wax yu sagesse yoo xam ne euh, Kant mënu ko woon Baudelaire mënu ko woon keneen mënu ko woon te nit ki bu ñu saa yu ñu la xañee sa sa culture xañ la sa bopp nekkatoo jàng nañu programme scolaire yi indi ay psychologue tranche dage bu tranche d'âge bu mën a am xam nañ la mu tolloo gone gay raam xam nañ biberon bañ koy jox ak meew mañ koy jox bu ci jógee ba raam bay war a dugg école xam nañu lañ koy jàng ci programme ba di la jàngal nos ancêtres les Gaulois Gaulois yi fu ñu nekkee suñuy ancêtre boo demee ba CM2 passé foofu ñu dugal ci yow programme scolaire boo xam ne xam nañ ne crise d'adolescence mi ngi waaj a ñëw ndax doomu aadama bu ne suñu borom a ko def am na ci étape boo xam ne ci sa dund boo ca eggee dafa wane ne bu defe nga ne sax bu asamaan wàccoon nga taawoo ko loolu lépp dañ koy jàng xam nuñ koy nuñ koy wëlbatee ba féetale ko ci seen biir boole ko ci programme scolaire nga dem ba war a def terminal ñu ne da ngay def philosophie philosophie dañ lay wax la négation de soi maanaam amatoo defal table rase jàppal ne nekkoo amatoo

bu ko defee ñu dugal ko foofu di jàll di jàll ba nga am say diplôme am say agrégation fekk euh, mi ngi mel ne ci masalan wuy woo xam ne dañ koo widee wala doomu gerte boo xam ne wang jël na ci la ci biir ñoom xottu wala nga defar nga xam ne duñ la bëgg sax nga mel ne ñoom la koy firndeel mooy kañu fi bàyyi ci ku xonq lam leen daan defal ñu koy fay yow dañ la fee bàyyi nga leen di tiitaroo te la nga leen di defal gratuitement mooy ëpp gën a gën a ëpp ci ñoom gën a doon njariñ ci ñoom ci ka xonq ka fi ne woon nga xam ne dañ koy fay loolu fu mu nekk te xamoo sam réew mu dox dana jafe parce que ñaari rapport day am kii defe ne moo xam kii des ñu jàppe ko ne xamul dana xaw ci suñu ñoo yu bare bare daana ci xew yu ma daan fekke

سرين تبا وخنكو ولا تعالوا من رأيتم فاه يخرج لا إله إلا الله لولو الحمد لله كنغا خم نموتا نغا خم لولو نغا دم عربي نيو دم دف لاواز دي سيرو يقص بابو نيو غم لولو نسين بابو نغا فات سبب يو نياك نغا فايدة فايدة غو خم نيو كي نيو خيب نيو خم نيو تخون نغا خم لولو بدم فا لولو دبال اي ور امنا چا اغنغرادي امنا چا نياك خم امنا چا تا واني الاسلامي امنا چا ndax ñi ñuy seetaan ñun jullit yi ak fu mu fi obédience bu mu mën a doon danoo waroon a te jàmm bokk ndey bokk bàyyi waaye bu fekkee dañuy xuloo ak a xeex ci suñ biir ña nga xam ne nekkuñu jullit di dajaloo ak luy néew néew néew danañu fexe ba juboo ba munun buñ fénqaloo ci suñuy tànk rek lañ jëm kon fu fi waaye mën a nekkee jullit ak naka nga mën a yaakaar dañoo war a booloo joxante loxo bokk ndey bàyyi kenn bañ a ŋaññi kenn kon nun ñoo yablu suñu bopp bu ñu gisee ñeneen yi du ñuy jullit gis jullit yi di saagante di reyante bokkuñu lu ñuy wax bokkuñu daani ki ay xalaat mu yàqu complètement parce que kenn ku ne la nga jotoon traverser nga ko ba jël sa xelum bopp def ca wala ñu roof ca meneen xel te li ci baree bari ay nit a koy fexe jaare ko ci alal kon loola itam mat nañoo dellu si xel yi xam ne ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kenn ku ne sañ ngaa yaakaar la nga yaakaar na nekk l'islam l'islam benn la l'islam c'est universel kenn ku ne bañ a xeeb bañ a gaañ sa moroomu jullit ndax jullit gi lay jullitay mbokkam ñu dellu si xel yi nekk benn ngir ñi nga xam ne nekkuñu jullit bañ noo yeb parce que yebeel gii ñu yeb jullit yi foofu dong la jóge fu waay jóge bëgg a beddi kook sa moroom la ca am itam ak tooñ day am ki nga xam ne bu mel ne xadimu rasul liggéeyal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ami jafe-jafe lool fa nga xam ne fa la ñu bari nangoo mu gàntal fa ngir jëmmi rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ngir samp drapeau l'islam kooka dem liggéey ba dellu si am ca màqama yam ci am nga taxaw jotewoo la yow dara yéen a ñépp عفوت عن الأهداء ترى موحكو يا مالك الملك يا من جرد عن خوض ارحم جميع الوراء وخدق يالا كوكو كوكو نيخو لوخ لو خمنا آه، جولنا وخدق يالا جوته ولك يو دارا نجي جل في خمنا كي كد لجي نسون برام سون برام فاينكو نجي أنيان تبايغا دي جل سو لمن دي وخلو لنيخ وخلو نياو لولو يا كرنانا جادول جادول

Léopold Senghor etc. cetera ñoo ñëpp mais Serigne Touba moo leen jëkk ci négritude moo leen ci jëkk ndax nit koo xam ne dañ lay xeeb dañ lay xeeb ad-durru wa nafhu min ar-rahmani laysa min al-biladi wa sudan ki wax loolu kay wax dëgg yàlla ba mu koy wax ñii ñuy wax négritude ju dooguñu waxuma laag di ko kon alhamdulilah kooku dafa may mata may cër leneen di itam ab sag ci àddina mooy nga am koo xam ne bépp naw nañ ko yow nga dogg ci ne kooka danga ko bëgg tuutal wala ñu ànd ak moom da nga leen a bëgg a tuutal akum réew ña ca jàqal liggéey dàq caa jaamu yàlla dàq caa bind alxuraan bokk ca ñooña laa wax bokk ca ndax ñëpp xëy na suñu borom mayu leen capacité boobu waaye bokk nañu ca ñooñu itam yor développement réew ma il faut ñu jox leen seen place au soleil loolu munta ñàkk jox leen mérite am réew balaa baax ku am mérite dañ ko jox mérite كامل ميريت نودلو جيكو ميريت بوكو أمي نانغول كو لا لولو لاني وارا ديف كون الحمد لله ريسو سوسي يقنا ادنا بو باخا باخ لا ايتام ليغي شيطان لا باسكو توبا بي فوم تولو موم ميغي گستو تي لوكو ريغلي اي بروبليم موم ميغي گستو تي لو خامني دا لي ديفيسي جون بور موم مو ريني واو لوني تاغالي تي لا نك وقتو ني تلي اس machine su ndaw nga mën ko ngëpp ci sa loxo mu mën laa woon àddina lu la neex wax lu la neex sànni te kenn du ko xam waaye kenn nga xam ne moo koy jëfandikoo moo war a xam ne doomu aadama bi bu fekkente ne am na wu fit am na si ngor lu mu néew néew néew néew lu mu wax da ko war a ñemee wax ci kanamu kam koy wax waaw kon nag jàpp nañ ne kuy wax lu dul noonu itam bay boo nga kenn mënu ci dara kenn mënu cee mucc waaw da ngay xam ne rek ka koy wax bu jàkkaarloo nag yow xelam xalaatul di la ko wax kon nag ku ci mas a dégg yu mel noonu ku mel ne sëñ Gana Messere luñ ko mën a reproché wax sëñ Touba nee na lu mu wax lu ne dana indil xasaay bi bu dee alxuraan mu indil la aaya bi wax dëgg yàlla moom waxul sëñ Touba wax ah te li sëñ Touba wax mi ngi ko jëlee ci yonent bi Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu junne ko suñu borom tabaraka wa taala ah muy kalimal xaq kon alhamdulilah xanaa kay bu kañaan duggee <laughs> nga bëgg a wax sëñ Gana waaye jote woo moom dara boo ko tàggatul ngir sa réew boo ko deful sax ngir diine def ko ngir sa réew ndax mi ngi indi mbooloo moo xam ne danañ naw Sénégal ci seenum xel ci seeni jikko ci seeni jëfin seenum ngëm loo xam ne danañ apport considérable considérable indi yokkute bu rëy ci l'islam bi nga xam ne c'est universel kon alhamdulilah loolu itam lu am solo la nu wàññi itam di wax ci kaw di wax ci suuf loolu dafa bari wax ci kaw wax ci suuf sëñ tubaa bëggul loolu ñu seet sëñ tubaa itam dëkkam bii ni mu bëggoon ko ko ni dëkkale noo ngi jóge day ci sunu roni garab yi niim bàyyi fa sunuy néeg xëy na wala ñu jël néeg ya teg ci sareet indi noo nga fa bàyyi sunuy quartier Dakar dafa am inondation noo nga fa bàyyi feneen fu mënoon a nekk am fay jafe-jafe naaj wa metti na ñu ñëw Touba yërmande ji bari na noo ngi fa bàyyi noo ngi fa bàyyi noo ngi fa bàyyi bin ñëwee danoo war bin jubee dëkk bi mbub mañ soloon wala su nañ bàyyee garab ga ca ga ca ga ca dëkk ba ñu bàyyi ko fa mbub ma nga xam ne waree su ko war Touba ñu bàyyi waale fa mbub mi wala bu ñu ko jubee ñu summi ko te bañ koo soloti ñëw nekke fi noo xam ne noonu la Sëriñ Touba bëgg ko ko fi nekke ndax daf ko bind wax ni mu ko bindee ci Matlabul Fawzayni bëgg ni ñu ko nekkalee Touba muy ville boo xam ne lu jafe ci àddina la mooy dëkk boo xam ne am na lu ëpp 2 millions d'habitants biñ ko créé yàggul mu nekk deuxième capitale u réew ma te te l'islam rek tax ñu euh, ñu sanc ko loolu yaakaar naa ne ku ko doon wër ci àddina doo ko gis kon réew mu mel noonu nga xam ne àddina bépp ñu ngi tiitaroo ci war a mën a ñëw Touba savant yu bari di ci bind kenn ku ne bëgg xam fu mel noonu nga ne ci réew ma bu dul dara itam xanaa boo bëggee sam réew loola war nga caa sagu ca wàllu googu kon nag dëkkam bii nga xam ne jàpp naa ne des ko fay war a dëkkal nam bëggee boo ko xaajoon ñetti xaaj defe naa ne ñaari xaaj yi nekk nekkuñu fi la sëriñ bi bëgg ndax ñu ci bari ay ay xadara moo fi nekk yoo xam ne lañ fay wax ñu ko doon waxee day ñëw yàqal la sa mbokk kala yàqal sa mbokk tegu la ko am fayda ndax bàyyi na ay mbokkam ba ba noppi lam lay dégtal ci sa mbokk yow dalaay yàpp waaw ndax buggul ku ko wax ci mbokkam bu ko defee tey ñeent ñetteel ba wala ñeenteel ba mooy la muy wax kooka bis bu génnee yow na xamal na yaa ci tege waaw loolu nag daa mate yow ci wàll googu la ca des mooy ay nit buñ nekkee dañoo war a yéeneente jàmm te kañaan gi bari na fi lool koo ci tudd mu am daraja day mel ne borom daraja beneen bu ñëwee da koy xatal te loolu sëñ Touba bëggu ko li may faral di wax moo di sëriñ Touba day dafa yaatal lool lool lool yaata yaatuwaay gi foo ko takk weesu na ko ñépp la safoo ku ci boolewul ku ci bokkul yaay ci boolewul sa bopp waaye moom boole na ci ñépp ñépp la ci boole fu mu ñaanal jullit ñaanal alam bi yépp ñaanal euh, àddina bi yëpp lay ñaanal bindif yëpp irham jàmmeen waraa kenn mënu ko weesu kenn mënu ko weesu loolu kuy bindif rek bokk nga ci ñaan googu kon moom ni nga ko war a dëkkale fii loolu rek la ci lu baax euh, di wax lu baax di def lu baax di liggéey di jaamu yàlla xam kan lañ doon di fonk sunu bopp ci wàll googu fonk sëñ tubaa fonk ndigalal sëñ tubaa ak tegtalam yi di jaamu yàlla fonk l'islam fonk suñu liggéey fexe ba suñu développement aussi ñu mën ko assurer fexe ba bañ a dépendre ci kenn ndax boo dépendre ci kenn rek yebeel dugg na ndax ki la abali bët moo dalay wax foog nga xool fa fa bëgg kon ñu nangoo ñaq nangoo sonn te ragal yàlla tey liggéey fi mu ko waxee mooy te jiital xam-xam ci lu mën a doon inni ujahidu bil ulumi wa bi abdan xadiman wal muhaymin shahid loolu la sëriñ bi jëkk a teg ndax lu xam-xam jiituwul rek làmbatu moo cay tege bu ko defee xam-xam ba it lu mu bari bari bu ca ragal yàlla amul xom-xom lay doon du dara day naaw du dara kon alhamdulilah euh, bisam bii ni lañ koy baaxoo di def sëñ Gana lañ bëgg a yewi xëy na dañ continuer waxtaan wi bu ko defee sëñ Mamadou Mamoun Niang euh, sëñ imam Niang moom sëñ Mamadou Mamoun Niang eggalee waxtaan wi ñu leen di xamal ne dawaayir yi fi teew yëpp noonu leen di sant tàmbalee ko ci Majmahun Nurayni bi sëñ Cheikh Lo jiite ak dawaa dawaayir yi nekk Sénégal yëpp di sant a asxaabu Ceñeer yi nga xam ne suñu réseau DTL la tàmbalee ci Ceñeer FM ci dakaar ñoo ca bàyyi ko ci gox bu ne ci Dakar te seen liggéey rafet lool ndax ak mu ne dañuy dem Poroxaan ñeenti biis dañuy yóbbu ma dalal leen ci kër sëñ sëñ Mamorum Saam moom Cheikh Mamadou Fadel fa la ñuy dal Euh, sëñ Mamor léegi la fi jóge moom itam dana dellu si incha allahu euh, jóge na fi ñu ngi koy sant bu baax léegi la fi jóge kon di sant itam dawaayir yi ci affilié wu yëpp moo xam ñu ngi jóge Tiwaawan moo xam ñu ngi jóge Njim Ngent moo xam fu ñu mën a jógee ak li wër Touba muy Baara Fall di Naydé di Tindodi di Polle euh, di fu mën a doon di di Tindodi di Daaru Naym fu fi daara daayira yi mas mën a jóge rek ak yi nekk ci Sénégal moo xam Mbuur la moo xam jiwaalo la moo xam fu mu fi mën a doon bari nañu kon ku fi teew ku ne ndax xam ne eh, ay ndindi sëñ Mat Jóob a ngi fi di magal kër gi wax dëgg yàlla ñu koy sant bu baax ci teewaayam ak waa Louga fépp ci Sénégal rek waa Tamba ak waa kër sëñ Moustapha Ndiagne ñi nga xam ne def fi ay ziar dëgg yàlla moom it mu nekk nit ku baax kon moom itam ñoom itam ñoo ngi leen di sant bu baax a baax di sant suñu xalifa bi sëñ ahmadou maxtaar di ko sant di ñaan yàlla yàggal ko fi ba naa li naalal cheikh mahamadou moustapha naa li naal yëpp egg di ñaanal suñu bor suñu wëllëre ak suñu mag bi suñu wétal muy sëñ cheikh madina ñuy ñaan yàlla guddalu fanam bu baax a baax a baax ndax ni mu toogee bu sëñ mbàkke madina ko soppi ak jaboot cheikh moustapha gépp jaboot suñu tubaab gépp ndax bisu seigne touba la kon képp koo xam aju ko ci sëñ rek ñu lay sant bu baax di sant sëñ Abibu Mbàkke moom Cheikh Mamadou Fadil moom itam ci taxawaay bi mu taxaw ci dëkk bi di ko sant bu baax ñaan suñu borom ay mébétam di sant ñëpp képp nga fi rek bu ma bu ma tuddul ñi nga sant nañ la bu baax di ñaan borom bis nga lu ne la defal mënu ma ko ñàkk wax dama invité fii lay Dieye fii ci nga xam ne fi la Sëñ Tuubaa déparé woon dem exil nii fii ci jàkkee ba tëdd mi booba fii ci mbaar mi la nekk ma muy def conférence ànd ak doomam euh, Bamba Dieye euh, ak euh, Moussa Gueye mu di ko jàng ba muy firi ba àgg ci ne léegi ilay xaadalaahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkin nee na ba bañ koy laaj firi mi doom waa ndar yi ñu am xam-xam dañ naan ah loolu kat doom létti mag la xale du ko firi waaw waaye léegi jàpp naa ne ku mel ne sëñ Gana Messere ak waxtaan yu mu fi wax ak ni mu ko toftalee xel me xalaat yi te tiimul kayit yaakaar naa ne bokk na ci ilay xadlaahu maanaam yokku loo jëkk a gis rek léegi bokk na ci ndax ñaan nii lay demee ñu fekkee ñaan nga ñaan doo ñaan fi saa si rek mu daal di mën a am fa saasa ndax yàlla doxalewul noonu balaa taw sax day xiin lu ci bari bu ko defee ñaan ni ma koy waxee projet la projet da ngay def étude de faisabilité dégg nga def requête recherche de requête de financement def adjudication def phase mu nekk phase de réalisation kon ci phase de réalisation boobu lan toll ci Serigne Touba képp koo xam ne xumaag rawoon na la wala sar saara rawal la la wala liggéeyal sëñ Tuubaa rawal la wala doomam ya euh, euh, yar na fi sëñ a yàgg jamono jii mooy fas de réalisation ku mu raw te ci waxtu woowu la seytaane tànn indi fi réseaux sociaux yi di yàq indi fi ay télévision yoo xam ne lu baax neexu leen indi fi ñoo xam ne yoon wi ci boppam moo leen déranger bu ko defee waxtu woowu nag ci lañ mën a dabaatale lu nu rëccoon ci Sëriñ Tuubaa ñu gaaw yar ci suñu njaboot yaru ci ba noppi door ca yar suñu njaboot wax Touba wax dëgg yàlla boo fi doxantoo ñaari ñaari mètre rek danga gis loo xam ne bu borom déglu si woon dana dana dana dana dana way dana dana tere loola loola kon alhamdulilah ñu nekk ci beneen comportement ci ñi ma ko sañ a digal ku fi nekk na nga xool la sëriñ Touba bëggoon ak na mu ko bëggee woon ab na ma ko wane woon ci léppam dafa da koo bind képp koo xam ne yaa ngi wax loo xam ne sëñ bi bindu ko xëy na ka la ko wax leerul daanaka yaa ngi ci erreur te yaa ngi yoon martu di mab li sëñ bi waxoon wax defoon ak lam bëggoon lépp bind na ko ku gëstu gis ko kon loolu moo tax njàng ñu war koo def xam-kan mooy Serigne tubaa ku mënul am xam-xam njàng mu weesu ci yow itam ñu dem ci ñii nga xam ne lu ñu wax lu wér la ci Serigne Touba ñu déggal leen jëfe ko fas yéene di ko jëfe di ko di ko def ci sunu xel di ko xalaataale waxtu wu ne kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan képp ku fi teew sunu borom faj sa aajo sunu borom barkeel njaboot gi kàttanal ñu may ñu lu tax ñu gën a mën a jàmm sunu borom euh, subhanahu kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp